axusubillahi min aseytaani rajim wa min kulli man lam yuhibbani min rijaali wa nisaayi wa inni uhisuha bika wa surriyataha min aseytaani rajim rabbi axusu bika min amasaati sayaatiin wa axusu bika rabbi an yaxduruun rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli wajaxal lisaani waxal bi saakiray kamaxan xindal mamaati mahal imaani yallaahu sadid lisaani nawir janaani safi amaani wasit baraayi وكن مهيسا لنا من شر حسد محشر فمن وذر عين الله وذر سهر وذر خلق انتهم مح جنهم والسوات سمي الله وكن أمامي وكن خلفي وكن وسطي وفي يمي للسمال يا رجاء يكوني baabal hidaayati mixlaaqal xawaayati mixtaaxat diraayati asal xalqi nil wasani lanabluwanakum lisaabirina xasibanaasi li kaasibiina bokk jili di bokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu te di leen siyaara te di leen ndokkeel fas yéene dellusiwaat ak yéen ci sunu waxtaanu alxuraan wi nu baaxoo amal ci weeru koor tey di sunu bindub tey ñuy waxtaane saar am solo saar wu bari njariñ di saar woo xam ne saaru ngëneel la saaru tawféex la saaru xéewal la saar la woo xam ne saaru bégal la waaye saar la woo xam ne saaru bakar feggu la waaye saar la woo xam ne saaru tànneef la wu yàlla sunu borom wërsëgal xeetu yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam moom saar woowu nag doon saaru màgg ku ne xam ne ne saar woowu ñu fas yéene waxtaanee mooy suratul xadr saaru dogal ba di saar woo xam ne ay ngëneelam bari na lool sababu nu suulu aaya bi nag saar wi bokk na ci kenn ku bokkoon ci waa bani Israil ci nit yi yonent yàlla Muusa alayhimu koo xam ne day dafa waxoon wax ju kéemaane ndax moom alayhi salaatu wasalaam dafa fekk ne dafa bëgg yàlla ba gëmewut borom bi waaye di jaamu yàlla jaamu yi tar moom alayhi salaatu wasalaam mu gis nekkat am na benn jaam boo xam ne wax na lu rëy xam na ne loola lu loola jaam ba wax yàlla nangul na ko jaam booba noonu ci jëfam jooju muy yonente yàlla Moussa ginnaaw bi ko yàlla wër sa wërsëgalee mu not euh, kooku nga xam ne moo yoroon mbaam ma waroon ca àndoon aku nitam ci fii nga xam ne tey mooy Jérusalem di Quds walla nga ne fii nga xam ne mooy euh, Palestine ñu dëkkoon fa ne fa doon fa jaamu yàlla doonoon koo xam ne nag daa amoonu mbaam daan ko war waaye kooko nag doonoon boroom xam-xam doon boroomu ismulaal ahsam yàlla sunu boroom joxoon ko ko mu man ci lool kooko nag doonoon ku keemaane ci jaamu goo xam ne daana ko sonne ci jaamu yàlla waaye nag mu demoon ba yonent yàlla Muusa sunu borom jox ko ndigal ngir mu dugg Palestine foofu ñuy wax xot ngir mën a woo ña fa nekk indi leen ci ñuy jaamu yàlla sunu boroom te gën gaa rafetalug jaabu fekk na foofa am na ku amoon sekkere turu yàlla daan ko jëfandikoo aw nitam bàyyi woon ko xel lool waaye nag teewut lool mu doonoon doon koo xam ne bu ñaanee yàlla wuyu ak ñaanam lépp teewutoon nag ab faqir la woon maanaam ku ñàkk la woon nga xam ne bari na ci nit yàlla yoo xam ne dañuy ñàkk da leen di yomb lool. moom boroom xam-xam boobu nag doonoon borom turu yàlla woowu ñeex nag mooy ki ñeex Balaan ibnu Baawoora. Balaan ibnu Baawoora daa doonoon ku keemaane ci turu yàlla woo ko suñu borom joxoon waaye keroog bi yonent yàlla Muusa duggee foofu ànd ak banu Israil te ñenn nag ci waa banu Israil waxoon seen wax ju rëy ja ne ko ñun fii la ñu toog waaye booy xeex nga dem xeex ak sa ànd ak sa borom nga xeex waaye ñun fii la ñu toog demuñ. ba ko yàlla wërsëgalee ba mu dugg yàlla toroxal balaan rekki ko ngir ñaan yàlla gum naroon a ñaan yàlla yonent yàlla Muusa te malaaka yi ñëw doon aw lay mbaam mi it wax ak moom doon aw lay ci na ko kii yonentab yàlla la nga bëgg koo ñaan yàlla xanaa yow kon tuskare nar da laa ñeel te balaan fexeel gën ko fexeel nag ñu ngi ko jaar ci soxnaam xam naa xista bu gudd la buñ ko tàppee dana dana gudd lool balaan ibnu baamora moom nag ginnaaw bu yonentu yàlla Muusaa suñu borom wërsëgaleen ñu not ko notu nitam bañ dugg ci ba ñoom ñooñu yàlla alag leen ñeneen ñi ci des yàlla dugal leen ci diine dafa am nag biñ defee xéewal googu nag bi mu yaatoo dafa am koo xam ne dafa sant yàlla ci fekke koo xam ne fekkee na ko xare yonent yàlla Muusaa yu bari te yàlla defal leen ci ndam am kenn ci biir nit yonent yàlla Muusaa yooyu nag ginnaaw ba leen yàlla nottalee balaan ibnu baamora bañ dëkkee xut am kenn ci ñoom ku jóg nag daal man de maa ngi sant yàlla ci bam ma dimbalee ma ànd ak yonent yàlla Muusa alayhimu salaam ànd ak moom ci xeex yépp waaye nag maa ngi sant yàlla sunu boroom subhaanahu wa mi nga xam ne sama guru mi ngi ci loxoom moom mi ma wërsëgal ma dund juróom ñett daan nag maa ngi leen di seedeel yéen mbooloo mi diirub juróom at sax laa wax diirub juróom fukki at yu mat sëkk a ngi nii yoo xam ne day suma cee mooy yàlla te damaa dëkk di woor bëccëg yi di fanaane naafila guddi yi te yàlla nangul na ma te yàlla it nangul na ma loolu nag bi ko naa Jibril nettalee alayhi salaatu wasalaam alayhi salaatu wasalaam dafa topp nag léegi yendalatul fanaanatul di war bëccëg yi di taxawe guddi yi di naafila naafila na li waraloon mu taxaw di naafila di naafila ba tànkam yi di néew wi ak taxaw fi nga xam ne fi la war a naafila mu takk ak buum ci kaw raccantal ko ci baat bi ngir bu ko ay nelaw naree dikkal bu ko buum gi raccantalee rek ndax da daan taxaw sax lu yàgg bi mu demee nag ba bëgg taxawaay bi gën di yàgg nga xam ne dafa mujj takk ak buum ci kaw raccantal ko ngir bu ko defee ci baat bu demee ba nara ay nelaw bu ko naree fëkk raccantal bi xoj ko mu mën a yeewu suñ borom nag bi mu demee ba gis nag ne jaamu yàlla gi fi mu ko toll ba yaay Aysa sax doon na ko wax naan ko ana jaamu gu métti gii ba mu ne xanaa du man maay xeerul alamin man la yàlla tànn ma gënal ko ci mbindeef yi te dama gis jaam boo xam ne ñeme nag jaamu yàlla te jaamu na yàlla jaamu goo xam ne neewaa na nga gis jaam ku ko jaamul te man nag maa gën a yell ci jaamu yàlla googu noonu pour ma defal ko suma boroom te kon nag bëgguma kenn di am ci yàlla sunu borom jaare ko ci jaamu yàlla lu ma dut am moo tax may damay góor góorlu ndax man may xeyrul alamin def ko ay at ba bis rek Seydina Jibril ñëw ne ko day sa borom xam na sa yéene xam na sa yëg-yëg xam na sa tolluwaay moo tax wërsëgal na la yàgg saw xeet indil na leen saaru màgg wu tedd woo xam ne day ci guddi maanaam ci guddi gi nga xam ne ci la alxuraan wàcc muy laylatul xaddar gudd googu doon guddi wéeru koor dont ne jamono booba jullit ñi tàmbalegun woon doon woor ak yu demee noonu waaye te wut it weer yi ñoom ñi ngi fi woon di dem di ñëw guddi gi it yàlla suñu borom mi ngi ko daxañoon ci biir guddi yi te xamalagu ko woon kenn alayhi salaatu wasalaam ñëw mu xamal ko ko ne ko ngi ci weeru koor ma ngi ca mujj ga mu ngi ci xaaj bu mujj ba xaaju weeru koor maanaam xaaj bi rek buñ ko waxee moom ci gëgëstal daal mooy la tàmbalee ci fukki fan ak juróom yu mujj ya daal dem kaw ca guddi googu guddi la goo xam ne guddi gi gën ci guddi lay tombeel waaye guddi la goo xam ne saa yu ñëw day tool day tool ci toolaange lay ñëw ci toolaange lay ñëw moo xam ci fukk ak juróom-ñaar moo xam ci ñaar fukk ak benn moo xam ci ñaar fukk ak ñett wala ñaar fukk ak juróom ñaar fukk ñaar fukk juróom-ñeent waaye daal ci toolaange lay ñëw wala ñaar fukk juróom-ñaar. guddi googu nag bi ko ko alayhi salaatu wasalaam bi ko Seydina Jibril xibaaree dafa mbég mbégte moo xam ne yàlla rek a xam doyam mbégte ma na mu toll moom nag alayhi salaatu wasalaam ci la ko suñu boroom wàccale saar wi di sóoratu xadri di saaru dogal ba muy inaa anzalnaahu fii laylatul xadr saar wi loolu mooy sababu sol bi nga xam ne kon kay juróom-ñett fukki at la wax na yoo xam ne fanaanee woor di woor bëccëg yi di naafila guddi yi yàlla suñu borom moom ñëw fulal ko xeetu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam defal leen ca buuñaa génn guddi rek goo xam ne boo ko màggalee mel na ne dund nga juróom-ñett fukki at ak ñaari kiweer ndax bu newee ci biir waxtaan rek dangeen ko dégg moom saar wi ñu war a waxtaane nag saar la wu màgg bu tedd doon saar woo xam ne mi ngi wàcc màkkatal mukarram waaye ginnaaw bu sóoratu xàbbasa wàcce moom saar wi moo ci topp doon juróomi aaya moom sóoratu xadri mu ngi doon ci alxuraan nag juróom-ñeent fukki saar ak juróom-ñaar muy quatre-vingt-dix-septième juróom ñeent fukk ak juróom-ñaar saar ci alxuraan saar wi ñuy waxtaane moom la auzu billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim inaa anzalnaahu fi laylatul xadr wa ma adraka ma laylatul xadr laylatul qadri xayrum min alfi shahri tanassalu almalaikatu waruhu fiha bi isni rabbihim min kulli amrin salaamun hiya hatta madlahil fajr mu ne ci turu borom bu tedd bu màgg boobu daal ci lay tàmbalee samay wax ak samay jëf moom mi nga xam ne mooy borom xéewal yi di borom yërmaande ji moom mi nga xam ne képp ku bëgg barke ci turam ngay tàmbalee yam ci moom waaye mooy boroom xéewal yu yaatu yi di boroom yërmande ji daj kàpp àdduna bi yërmandeem jooju nga xam ne moom la wasal ci mbooleem mbindaafonam yi moom boroom boobu nag mooy boroom xéewal yu sew yi nga xam ne da koo xaroo jagleel ko ñi nga xam ne dañoo sonne ti ji ko jaamu te boole wonu kook dara moom subhaanahu wa ci gën gaa rafetalug jaamu ci bàyyi xel goo xam ne bàyyi nañ ko xel seen borom moo xam ci koor yi moo xam ci mboolem façon jaamu yi moo xam ci sakkaan moo xam ci asaka moo xam ci aj màkka moo xam moo xam moo xam ragal yàlla goo xam ne ñoo ko cay taqoo xéewal yooye nag doon yu tàmbalee ca bàmmeel ya ba bis penc ba ba keroog ñi naan ca dégg ba ba keroog ñuy tab bi àjjana sax fa dakk mu ne ci tura borom boobu daal ci lay tàmbalee samay wax ak samay jëf mu ne ko yow yow Muhammad alayhi salaatu wa salaam nun yàlla ñoo wàcce de ci guddi dogal ba ci guddi goo xam ne ñoo ca dogal dogal lu am am solo nun yàlla kat noo wàcce ci guddi dogal bi guddi googu nag ñun ca lañu wàcce alxuraanul karim ci guddi googu nun yàlla ca lañu wàcce alxuraan mooy guddi dogal ba alxuraan nag ku ne xam na dayoom akub tolluwaayam guddi googa nag ñu wàcce ko ci muy guddik laylatul xadr noonu yàlla ci lañ ko wàcce moo tax mu ne ana lan moo leen di xamal laylatul xadri noonu yàlla mi leen wërsëgal guddik laylatul xadr yow alayhi salaatu wasalaam yaag sew ñooñ ana lan moo leen di xamal laylatul xadr mu ne laylatul xadr nag na nga xam ne mooy genn guddi daal goo xam ne dëxëñ naa ko ci biir weeru koor ca mujj ga mu doon guddi goo xam ne moo gën junni weer junni weer kon lañ leen doon wax léegi kon mat naa bàyyi xel te junni weer boo ko xoolee mooy juróom ñett fukki atak ñaar ak ay weer yu teg waaw mu ne guddi googu nag mu ne bu ñëwee yow alayhi salaatu wasalaam mbooleem malaaka yi ñoom ñépp dañuy wàcc ànd ak seen njiit la muy seydina jibril alayhim salaam moom day ñu wàcc nag ñëw waaye ñoom ñépp ñëw ga ñu ñëw nag ci ndigalul seen boroom lañ koy defe ci ndigal loo xam ne yàlla sunu boroom jox na leen ko ngir ñu mën a wàcc ànd ñoom ñépp ñëw nag ci ñëwin wu tedd ñëwin wu màgg moom sunu boroom nag moo leen di wàcc ñu ñëw nag ànd ak seydinaa Jibril ci mépp mbir nag lañuy ànd ñëw ci mépp mbir nag moo xam ne lu soxal ab jullit la ci lañuy ñuy àndandoo ñoom ñëpp nag wàcc ñëw ci seen njiit di Seydina Jibril alayhimu salaam ci guddi googu ànd koog yonente bi alayhi ak ñooñu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ci jaamu yàlla ñoom nag ñu ci jéggalul nit ñi ñoom danañ ci jéggalul nit ñi di ci xool xeetu yonente bi alayhi salaatu wasalaam boo demee sax ci ñi nga xam ne mooy ñi amee euh, xam-xamu biddiw dem nañ ba gis na sax guddi googu day ci la ñu tànn ci la suñ boroom di tànn ñu war a jëm ëllëg maanaam ñu war a fekkewaat déwén muy guddi gi laytu xadar moo tax de sunu sang ba aseyq saalih daana wax wax ju am solo ne ki ko yéem dëgg dëgg daal mooy ki ñetti guddi yi di fekk ci kaw lal guddig layatu xadar guddig yow guddig eh, yonente bi alei salaatu wasalaam ak guddig safar nee daal bu dee am na ñenn ñu ko yéem daal ñoo ñoo ko yéem kon muy lu ama ama am solo tamata bàyyi xel waaye nag mu ne ginnaaw ñoom ñëpp nag ba ñu àndee nag ci seen ndigalul borom ci mépp mbir nag ànd ak seen njiit loolu di seydinaa jibril alayhim salaam mu ne nag doon nag bis boo xam ne nag guddi googu guddi jàmm la guddi jàmm la te it day làmboo ci mépp mbir ñoom danañ làmboo ci mépp mbir tey jàmm la moom la làmboo ci mépp mbir ba baa fajar ga di fenk wala nga ne sax ba baa njël di jot waaw njël nag suñ ko waxee mooy ba fi diggante leeru jant bi ak guddi gi maanaam leer gi ak bëj ak gud ak lëndëm gi fi ñuy tàqalikoo foofu mooy njël ñoom malaaka yi bu nu wàccee danañ nekkadoog nit ñi ba waxtu woowu ñu doog a delluwaat ca delluwaay ba ci seen ndigalul boroom kon guddi la goo xam ne guddi gu bari nga ngëneel la guddi gu tedd la guddi gu màgg la waaye guddi sutura la guddi xéewal la yàlla sunu borom wërsëgal ko xeetu yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga gis ne kon ku ci fekk ñaari laylatul xadar kon daanaka jaamu nga ya taxawaay na kon taxawaayu jaamu yàlla maanaam téeméeri at mën naa ne ak juróom-benn fukk ndax ñaari quatre quatre vingt quatre vingt quatre vingt loolu ku ko yàlla sa gël nga fekke ñaari laytu xadar rawatina nag xeetu yonent bi ngay fekke di fekke di fekke di fekke di fekke rek te fa la ñu jëm dara du fa doy dara du fa doy ndax nañ ko waxee woon rek ña fa ne ku leen fëggoon na leen lu ngeen gën a bëgg dee si waat àdduna lañuy wax nañu ko euh, sunu yaakaar Aseyxul Xadim waxee ci téereem boobu nga xam ne mooy Masaalikul Jinaan kon mbokk yi saar wi gàtt na lool waaye fees na dell ki ngëneel saar wi saaru bégle la kon am na solo lool xam naa buñ ko toppee dana gën a gudd gars dañuy far wàcc foofu sunu kàddu lu ci jub ñu sant ko yàlla lu ci dëng ngeen jégganu ko te xam ne mata dig doomi aadama seen bokk seen xarit sëriñ Mbàkke Lo xasaayit ngaabu di wax li borom xam-xam yi baax wa li kulli jawaabin kabaa li kulli alimin xafa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala